Mm. ci ngeen bokk dikkati la de. ndax sax Alioune Sall ci émission bi la bokk. waaw ci laa bokk incha allah maa ngi bokk ci émission ci ngeen bokk màggaay yi di ci ngeen bokk. am ci nga bokk man bokk sax ndax dañ ma cee bokkaale. la Alpha rajo Dunia RDV ànd ak yéen ci seen émission bi di ci ngeen bokk. nuy woo suñuy bokk ak seen bokk ñun ñëpp ñu ànd te ñëw bokk. man la Mamadou Lamine Bara Dieng bu Walf Fadjri maa ngi déglu émission ci ngeen bokk ci laa bokk. man Babacar Sylla borom islam wal xaya maa ngi déglu ci ngeen ngeen bokk ànd ak Souhaïbou Diop. man Boubacar Diallo soppey sëñ Souhaïbou Diop bu sopp naa la lool naw naa sa dal ak sa tey ak sa liggéey. DJ Boubs ci la bokk. bokk yi émission ci ngeen bokk. man Fallou Cissé ci laa bokk. ndeke yoo comme neex nga bokk. man la ma ne mais bon dafa am maa ngi déglu émission si ngeen bokk.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 ñëpp nuyu nañ euh, suñu mbokk yi nga xamante ne nii saay su nekk rek dañuy bàyyi xel solution TV solution info rawatina sénégalais yi nekk ci bitim réew di ñu bàyyi xel euh, ginnaaw nag bi ñu leen nuyoo tey nag ci ngeen bokk ku mu neex bokk yow mi toog sa biir kër sax su la neexee bokk. ñoo ngi fi dalal ku ñuy wax Abdoulaye Cissé ñu gën ko xam ci Sawolof Sawolof nag euh, ko ko gis ku nekk rek ràññee ci combat yi nga xam ni mi ngi koy mënee ci biir réew mi ñu toll nag ci situation yoo xamante ne ni yu jéggi dayu la moo tax tey teewam fii Abdoulaye Cissé maa ngi lay nuyu di la ziar te lay ñaanal jàmm ju sax takk maa ngi lay fay soxna maa jigéen di nuyu ñu ñuy seetaan. Mm-hmm. di ñaan yàlla suñu borom mu yaatal suñuy dënn leeral suñuy laamin. bali si wax ñu man cee jëlee njëriñ. Mm. waa tey nag moom ci laa bokk. Mm-hmm. di ñaanal yàlla sama baay bu baax ba. yàlla xaare ko aljana Baye Fallou Cissé. waaye nag dinaa leen beqi de xam mm. mooy mooy ah. seen bokk gi. da ah. a bind ne ci ngeen. Ah. bokk. léegi ngir mu mën a doon ci ngeen bokk. ngeen gi hmm. e accent kii bële day amaat beneen e day amaat beneen e. muy ñaari e. muy wolofal. waaw kay moom mooy ngeer léegi nag bokk bi nag <laughs> benn olay doon. ak ah. ñaari kë. mooy ñaari ah. ah, kaa. waaw ñu wàccee ñu rectifié loolu bekk leen ndax Baye Fallou Cissé ngeen ci dugal moom. ayca kon dugal ko macha allah. xam sooy boo jëf jëf jëf ji maanaam dugal Baye Fallou ci. Eh, eh. sedd na sama xol man est-ce que émission bi dana eh. maanaam danaa ko mën a jekku. <laughs> non di nga ko jekku ndax yaram wu daw. amuñ lu dul moom ndeysaan. dañ ko ñaanal rek yàlla suñu borom yërëm ko taxaare ko aljanna maanaam bi ko Abdoulaye di recevoir yi. Mm. Abdoulaye da ko seedeel bi mu noppee ne ko yow laa mos a recevoir. ndeysaan te waxoo mos a soxla su bopp soxla réew mi rek nga ma wax. wallaay ndeysaan nit. li ko wax mooy mu ne ko nga taxaw làkk wi taxaw askan wi. Mm-hmm. ne ko leen rek laa soxla. ay daamar mm-hmm. ak luy tolloog téeméeri gone yoo xam ne soxlawuma kenn ëppal ci fanweeri at ak juróom mm-hmm. fanweeri at jëm suuf rek mm. Euh, laata loolu nag ci la gone yu bari ci ñun ñoo xam ne man aw ma sax mas nañoo nuyoo nag. Mm-hmm. waaye fekkuma ko ci kuréel gi. Mm-hmm. ñu mel ni waa wax wolof ak xam ne dabu wolof wolof wolof ñoo ñëpp mu jàngal ay gone yoo xam ne toqi leen. Mm-hmm. dindi ci ñoom ak yaras ndax moom dafa nettali ne ñenn maamam. benn maamam moo ko mas a wax ne ko sëñ Touba nee na ko woon. maanaam sunu làkk wi gànjaru gi mu gàccaroo mu ne nit dana gage ci réewi naar yu yi mm. te bu ñëwee ci diggante jumaa ji ak Mbàkke Bawol fii las koy gàggantee mu ne ko maam Sëñ Tuubaa wax lii mu ne ko mooma ko wax maa ko dégg sama nopp maa ko jottali mm-hmm. nee na mu ne ko bis nii tey mm-hmm. wolof laa deeti mm-hmm. gëstu macha allah Baye Fallou ko xam-xam ko noonu la mokkale alxuraan noonu la peegi téere xam-xam rawatina miiraas te gis nga du yàgg yàgg ba nga gis ko Mm-hmm. di ko ko xoolee ma koy teg daal mm-hmm. mu ngi mel ni saa wolof moo gis rek yenn saa yi ma toog mm-hmm. eh, man nag arab laa jàng donte ne soriwu ma ci lool lool lool lool ba dab ko waaye nag wolof rek laa jàng nag moom laa gën a jàng moo tax man ñu bari sax ñu ngi yaakaar ne doomam laa ba doomam jooju nga xam ne xaritu son yi bu jóob la saa su nekk ma nekkoon na ma ko dimbali des fois moo ñuy gàggante si yenn yi sax damay dama ko yàgg a bëgg a gis ndax ñu bari dañu yaakaar ne doomu Baay laa ñi naan ma da ngaa niroog moom ak nangam ak nangam yooyu ma ne leen xaj na day sama bàyyi xol loolu moo tax waaye bëgg naa gisanteek ak njabootam mm. surtout kooku xam naa dinaa jaar ci son bu insha allah yàlla na ko yàlla yërëm amiin xaare ko ca guyaar yu kawe allahumma amiin nii sax noonu la parfois c'est bien de rappeler ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi bàyyi koo nekk euh, ay mag yu baax ci njàngale surtout ci wolof bi nga xam ne dañ koy faral di ko làkk et parfois pour nga bind ko mu leer sax euh, c'est tout à fait un problème donc Saa euh, Wolof dañuy waxtaan yéen bi nga fi mujjee rek euh, kàddu gi benn la woon mooy nekk lu dul waajal élection présidentielle yi ñu fas yéene woon dëgmal ci dimanche vingt cinq juin février deux mille vingt quatre ngeen nekkoon ci wàccaay yi. Euh, parfois euh, sénégalais yi am ci mbetteel yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ko doon wàcc ngeen xëy xëy gis euh, monsieur le président de la république du Sénégal muy Macky Sall génne ab ndogal bu nga xamante ni nii ne day béggandi li nga xamante ni nii moo di élection yi ñuy jëm mooy fomm ko ba jëmmi jamono. yéen ba ngeen yëgee nouvelle boobu noonu ban appréciation nga def par rapport ak li xewoon surtout ngeen nekkoon ci wàccaayu campagne. waaw ñi mu bett nag bariwut. Hmm. wax dëgg yàlla am ndax ñu bari xaar nañu. xam nga ak ah. président Macky Sall moom lu mu defagul ngay wax. xam nga boo dégloo ku mel ni saa te yenn saa yi sax ay nit dañ naan ma yow euh, am na bés nit woo ma ne ma yow saa ngay déglu. Hmm. fekk ci benn kii ma ne ko ah, man de. Hmm. Euh, boobu maa ngi doon jàll vingt 24 ak Moustapha mbay fa yee ngeen ko dalal. ma ne ko man su may wax day fekk juróom-ñeenti waxtu maanaam 9 mooy jot. jàpp te saa 11h lay wax te bu ñu bokkee benn débat di ci waxtaan. Mhm. bu noppee moo dama jàpp ne montre yu baax yee bokk. ñu ñëpp euh, ku ñu sopp. Mhm. muy Sidi moom nag mu amoon sens nekk ci loxoy Sidi waaye ñun ñu amoon sens indirectement <coughs> gëstu boobu ba pare beneen bi muy ragal yàlla gi nga xam ne moom la ciy boole ci ay jàngatam bari na analyse yoo xam ne li leen saa rawee rek ragal yàlla. ndax suñu mhm. nag. maanaam amul secret de moo ne ragal leen ba ma xamal leen. loolu nag moo ñu yóbbu ci man Macky Sall ci lii xew mi wala nanga waaye ñun li ñu gëm mooy saa su nekk li nga war a def la koy def gis nga Ousmane Sonko bokk na ci lu mu réussir maanaam li mu war a def lay def moom doxul ci programme Macky Sall ci programme am lay dox maanaam capacité bi mu ci am di xaar lépp lu ci man di am moo tax lii ci ñëw nii beneen bi nag mooy élection vingt cinq février yi bu kenn def ci sa bopp ne dàq nañ ko ah bon waaw kay man dama dul fekk ku nekkul ci yoon di ma dicté ay loi te man ma nekk ci yoon constitution bi may ma ne ma yow lii moom nga war a doxal nii la war a demee man may ñàkk fayda ba koo xam ne wàcc na constitution bi mooy ndeyu àtte ji nga wàcc ko yow bëgg maa teg ci yoon wa nga jëm du ma ko hmm. nangu hmm. moom kay dama ciy xeex li ma man wax ci lu ma man hmm. fu nekk lii ñu ñëw di def fii ci xeex bi la bokk éclairer nit ñi pour ñu xam li ñuy wax ragal gi dafa war a jóge wet gi mu fare dem ca wet ga ga mu war a ne ki nekkut ci lu jub nekkut ci lu jaadu bu ragal dee am mu war a ragal ak mbooleem takk der yu mu nekk ci ginnaawam wala justice bu mu jàpp ne mën naa nekk ci ginnaawam wala dara. Hmm. ndax ñooñu gënuñu leen a jàng. Hmm. daa jiitu ñu topp ci ginnaawam. Hmm. dañ ko joxoon mandat boo xam ne nii sept la mu wax ñu ne damay wàññi sama mandat bii. def ko cinq ans. parce que du yoon Afrique nit di fi toog di fi toog nangam nangam. wax ci la muy wax wuur fu nekk wax ko ñu ngi fàttali bu mu teewee fi kanamu Sarkozy. bokk na ci li mu wax mooy kàddu yi de moom réy na réy xam ne mos ta dégg africain wax ko kon challengé woon nañu en tant que africain ñu war a woon la face du monde ne ñun du ñu yàlla dogal moom mu dem ba war koo jëfe jékki dugg ci layam layami laaj conseil hmm. xam nga bu ma doon dem tey war a xeexi doo sama baay doo sama yaay mais bu ma nee la maa jigéen maa ngi dem xeex yi mais danga naan ma toogal ndax léegi boo ñëwee ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel lan la la wax ne la loolu sax am solo daf ne ko yow sa mandat mënoo ko wàññi parce que mandat la askan wee ko man moom ndax buñ ko nangoo nga wàññi ko bu ëllëgee ci conseil yi mu ko jox de nit mën naa yokk wax hmm. nga dem bi te foofu ma wax ne moom bëggoon a wàññi mandaam soxlawul woon dem conseil constitutionnel bu la neexoon léegi nga gagné élection yi 2000 maanaam joomaay bu ko neexoon mu gañe élection yi deux mille vingt quatre daal di toog un an képp wala un an six mois ne demi ne damay def élection anticipée loolu mën na ko mais dem ci constitution bi di ko dindiwaat pour di ko fa yeexal di ko wàññi foofu la mënewul maanaam mm. mais élection anticipée ku ne mën na ko mm. kon loolu bu bëggoon a wàcce kàddoom def li kilifa gu baax di def dëgg-dëgg. Mm-hmm. mënoon na ko amoon na occasion bi. Mm-hmm. mais malgré loolu lim ne woon moom la ñuy may nangu na ko. Mm-hmm. waa léegi ku saraxutul gumba ba kooku gelwaanam jël na ñun lim ne woon moom la ñuy may nangu ko ñu dem ci ñu daal di dem wooñ ci con ci référendum. ñu wàññi mandat bi indi ko ci maanaam yan bi indi ko ci juróomi at ba mu nekk nii ñu ne la le mandat et de cinq ans. renouvelable pour une pour une seule fois. nul ne peut exercer. plus de deux mandats consécutifs yow mandat bi jeex mm. nga bëgg cee teg fukki minute ak juróom mm. waxantuma laa nga bëgg cee ak juróom ñetti weer li tax may fukki minute ak juróom mm. général de Gaulle daf na nañ moytu maanaam quinze minutes de trop ñu ne mandat nga dolli ci quinze minutes danger la mooy quinze minutes de trop kon bu ko ci dollee moom ñu demaatoon ba léegi dañ ko li ñuy wax euh, clause d'intangibilité clause clause d'éternité maanaam lii daal ba Sénégal di dox bay nangam nii nii lay doxee mel ni États-Unis seen constitution boobu nga xam ne lu mat ñaar téeméeri at lu ko ëpp am na ko parce que intangibilité ak éternité dem na ba lu ñuy wax dix command dix dixième euh, amendement xam nga dixième commandement mm. ci seen loi bi nga xam ne moom mooy may nit ki mu yor ngànnaay rey bëri na États-Unis surtout ci jamonoy Obama te Obama ñëpp xam nañ il est aimé par mm. les Américains mm. bi mu duggee bëgg koo laal dañ na ko déedéet lii dañ ko fee bàyyi booba ak booba industrie d'armement yi ak ñooñ ñëpp lànk Sénat bi mm-hmm. fi mu def ak yooyu parce que lu ñu yàgga laal la même bu ñu demee ba xam ne baaxul ci ñun sax mm-hmm. ñoo ko waxoon loolu la réew mu mat réew di def. waaw da ngay euh, fàtte ni nag fi réew mi ñu nekk mooy Sénégal sañ-sañ yi moom bëri na rawatina nag euh, ci président bi yaa ngi wax tout ne sañ-sañ bi mu am ba def ko léegi nag waa assemblée ñoom ñoo ko jox pouvoir boobu peut-être ba tax tey jii nii ku mën li Moussa Diakhaté sañ a taxaw biir euh, assemblée devant l'hémicycle mu wax ne carrément lii procédure d'urgence la parce que dañu jiiñ Euh, ab candidat ñenn ñi di insinuer que ni euh, Amadou Ba la que ni dafa corrompre ay juge looloo waral candidature peut-être euh, Wade fils di kii di Karim sa Wade indi jiixi jaaxa yooyu ñoom loolu la ñu teg comme lay que ni looloo waral coow lii tey ex fii nii. waaw di d'urgence xam nga fan lañ koy waxee. Hmm. mooy nga ñëw indi dara di ko votelu maanaam mu nekk daar daar te boo ko indee dañuy sañ def amendement mm. parce que dañu ne bépp loi boo xam ne ñu ngi koy indi maa ngi lay delloo nag ci procès bu sa ànd sàmm jikko yi bi ñu ñëwee dàq ko ne duñ ko daal di koy rejeté mm-hmm. proposition de loi ñu rejeté ko mm. rejet boobu du woon yoon parce que dañ ne leen saroon sañoo leen koo rejeté lu dul fekk ci suñu constitution yaakaar naa maa ngi woon ak kii euh, bi su ma ko kiiwul ma ma dawal ko mm. naa nag dawal bi dana dana xaw a yéex ndax ndax ab mm-hmm. ab ab saawolof la <laughs> xam nga bu dee saawolof moom mën naa bañ a peeg mbindum nasaraan mi wax kay ok mm. léegi bu fekkee ne kii la bu mm. fekkee ne dafa am ñu def amendement dañu wax ni les propositions et amendements formulés par les députés mm. ne son pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques mm-hmm. soit la création mm mm-hmm. la ou de charge publiques mm-hmm. à moins que ces propositions à, euh, ou amendements ne sont ne soient assortis de propos, propositions de recettes ok sama voilà voilà mu ngi ñëw waaw mhm, mhm. ah, waaw mën nga continuer en attendant. loolu mooy bi. voilà bi am de de recette compensatrice. Mhm. voilà dafa dafa kii woon. loolu li mu ci li ci nit ñi war a mën a jàpp. muy sama mbokk yi nga xam ne ay saa wolof lañ. ni man dégguñ tubaab man nag dama. Euh, jéem a góorgóorlu nag ba mën a dawal mbirum français mi. waaye bàyyi bàyyi jàngloo ji mu woon tubaab. arab la ma jàngloo ak wolof. léegi nag li mu ci wax fii mooy. bu fekkee ne dafa am ku indi projet de loi wala proposition de loi maanaam pour mu bañ a jàll day fekk mu mën a xos ci gafag réew mi walla mu diisal sart yi. Mm-hmm. léegi lu waaw ànd sàmm jikko yi amul dara loo xam ne dana ko diisale sart yi maanaam danañ jël ci xaalis jibay réew mi def ci dara <laughs> mu ne loolu nag maanaam mënoo koo def bu boobaa même bu dee ko diisal day fekk ki indi mbir mi man ñoo wax moom fan la koy jële mm. léegi bu fekkee ne këf kii léegi nag loi bi ñu indi tey nga xam ne gis nga boo defee lu dul yoon daf lay dabaat loi bi ñu indi tey xam nga lan la ñu indil mooy daf ñoo wan nañu xam nga ñaata moyen logistique RTS jëndaluñ ko ay daamar yu bees ngir campagne. évidemment jëndaluñ ko caméra yu bees ngir campagne. Mm, mm. tiire wuñu ay bulletins yu dul jeex. wallaahi nga candidat yi jël xaalis bu dul jeex def ci. Mm, ñu perte temps boo xam ne temps le temps de l' argent. ñu perte ko kon lii wane na na bu ñu defee amendement léegi nag dañ ne loolu bu boobaa. ñu ne amendement yi mënuñ koo jël gën gaa néew néew fukki fan lay doon bu dul mu jàmp léegi loolu nag la Moussa jaxate di wane ne dafa jàmp moo tax ñu indi ko loolu jàmpute gi lay wax. <laughs> léegi nag ñu ñëw nag ci li nga xam ne moom lañ ñu andil. Hmm. li li mu yellul ci Macky Sall mi première institution noonu la yella dee ca ngombulaan nga muy ensemble noonu la fa yella dee gis nga lii. Hmm. dafa am na lu ñuy clause d'intangibilité ak clause d'éternité. Hmm. maanaam mooy mbir moo xam ne dañ koo dajale ba mu kii ñu tëj ko kaste ko <laughs> tëj ko ak caabi. jël caabi ji sànni géej. maanaam caabi ji dénkuñ ko ensemble. Mhm. dénkuñ ko Macky Sall. Mhm. dénkuñ ko keneen ak keneen ak keneen ak keneen. Mhm. te beneen bi muy mu am xam nga moom bi muy ñëw bëgg a taxaw ne crise maanaam Sénégal euh, njiitu réew amul fenn fu mu mën a ajee élection lu dul crise boo xam ne dafa réel maanaam dafa doon loo xam ne da nga koy làmb di ko daj. wala nga koy yëg xam nga tey bu ñu nee la woon Sénégal am na monument de la renaissance. nga nekk France. bis boo wàccee Sénégal boo demee da nga xam ne lii monument de la renaissance. d'accord. suñ nee la maa jigéen mi ngi biir wal fajri ma nga fay dund mm. boo ñëwee mu wóor na maa jigéen a ngi fi mm-hmm. loolu mooy risque bi mm. dafay leer mm. xam nga ginnaaw bi nga xamee ne renoncé wu na nee nañ ci troisième candidature ne du bokk wër fu nekk di ah. tàggoo te fekk yéen ay del si war ah. comme ni ko Sanjoogu di waxee ah. loolu yëpp dafa am fu ñu xëccoon nit ñi pour lu ne def nañ ko fi nit ñi xor ñooñal nañ leen mm. jàpp fi Ousmane Sonko mm. bi ñu ne woon nangam ak nangam te yoon jàppalu ko ñu bëggoon gaa yi génn raak gaa yi mujj toog ne xeexuñu comprendre li sonk wax ab biis sax def nañ ci mise en scène ne biis bi dafa tàkk ñuy waa APR di jibile naan première attentat terroriste mm. ak yi ñuy wax yépp premier attentat terroriste te ndegete amul Touba sax tiwo am na fa jamonoy màggal ñu indi tiwo ba ci buntu kër nit muy wal di fa dugg mm. kooku di jigéen ni yow amul benn pexe bu mu mën a def mooy tiwo serpent yooyu dem fa nga xam ne yeggul ci këram mu dagg ko fa mm. pour mu yem fële mm. amul sax doole yi xaj na wala xelam maanaam euh, yóbbu ki mais lan nañ ko jàpp terroriste pour nàngam yàlla dogal musal ko maanaam baayam di mbokk ci sëñ bi wala di taalibe ci sëñ bi ba sëñ bi plaidé à sa faveur mais bu doonoon koo xam ne xamante wut ak ku xam sëñ bi nu muy demee dañ koy topp terroriste dem jàpp ko mhm. yooyu yëpp ànd ak yooyu yëpp kenn xeexul mhm. institution yi muy wax ne dañoo am problème institution yaa ngi dox justice mi ngi dox parce que ñoom mhm. conseil constitutionnel moo validé candidature invalidé ñe kon mi ngi dox législative maanaam muy ensemble mi ngi dox ba avant muy jël décision bi hmm. wooluwul Mamadou Mame Diop Mamadou Mame Diop du ensemble la jóge du ensemble la jóge ñëw hmm. bàyyi fa ay nawleem ñu continuer di liggéey bu dee ay nawleem a ngay mi ngi doon dox noonu boo Abdoulaye Daouda Diallo ko hmm. institution boobu mi ngi dox wala dox xam mi ngi dox soam euh, kaw ma Rose Wardini du justice lañ ko dem jàpp defoon ko la mi ngi provisoire foofu laay waxee kon léegi moom li mu layoo ba ci biir kàddoom sax mu waxoon ne am na ci candidat boo xam ne sax ñu ngi ko toppee hmm. nangam liber euh, kii ñu ngi pare jox ko liberté provisoire te kooku dafa partir mooy wax lu dul dëgg hmm. waat wàcc ne hmm. yow amoo beneen nationalité bu dul boobu Sénégal te fekk du dëgg mais ñu jàpp la ci yoon mu leer kooku nga jox LP xañ gi euh, Bassirou Diomaye Faye ah, non non ko ñoom ñaar ñoo bokk lu ñu li ñu def parce que Karim ñëwut Sénégal mm-hmm. mais Bassirou Diomaye Faye mm. yow yaa ngi ko teg mënta am LP ay avocat mi ngi nekk sax candidat nga xam ne nit ñi wóolu nañ ko joxoo kooku LP yow ki ngay jox LP mooy ki fen ba ñëpp xam ne fen na parjure trompé kii ba bi ko enquête yi kii mi ngi continuer di wax lu dul dëgg mm. yow léegi yow kooku nga jox LP mm-hmm. bàyyi ñeneen ñi nga xam ne ku leen déglu ñëpp xam nañ ci njort ne amul dara loo leen di toppee nga dem jàpp leen ñu teg mm. gis nga fii ragal newu fi maanaam li mu bëggoon nit ñi ñoo ko ci fekkut mm. moom li ñuy wax crise moo ko installé boppam <laughs> ci bi mu jëlee lii mu waxoon na ne du nangu lii mu bëggoon lii mu bëggoon pour jóge ci aj kii bu fekkoon da cee woo nit ñi mm-hmm. wala bi mu waree wax noonu bañ tee Amadou Ba ak uh, kii nu mu tuddati Cheikh Tidiane Dieye nit ñi meroon mm-hmm. ba jóg dem di daaje ji RTS. Mm. wala ñu jóg dem di gàllankoor ensemble parce que dañ ne ensemble après fa la jëm. bu boobaa crise am na. Mm. bu boobaa bu jëloon décret bi. Mm. décret bi day volable. te bépp koo xam ne yaa ngi yaa ngi waxtu waa ngi euh, dàpp euh, euh, kii sa wolof te am na yeneen question yu fi nekk. yaa ngi wax léegi nii ne combat bi door ngeen ko mooy xeex léegi. xeex bi est-ce que amul beneen moyen bu ngeen mën a def parce que tamit woote conférence de presse comme ni ko gars yi defee tey ñëw ku nekk jël sa micro ne élection yi dañ ko war a tenir euh, ci ay wax rek la war a yam pour que li ngeen bëgg yéen itam ngeen am ko parce que moom teg na ay actam ba toog di leen. mais ñun li ñuy acte yi ñuy teg danga ko waxee xeeb barkaat démb jàppuñ Mimi Touré ak kële démb jàppuñ gi mari ak yi mais dañ leen bàyyiwaat parce que dañu. waaw mais dañu bàyyiwaat mais moo lay xamal ne jeexaat foo jëlee doom delloo fa sa loxo. Hmm. du ñu dakkal li ñuy def parce que ñun dañoo xam ne. yoon ñun la may ñuy compagne moom li mu def la ko yoon mayu te xam na ne yoon mayu ko mm. ñi mu àndal xam nañ ne yoon mayu ko dégg mm. naa déclaration bi Diop si def mm. commencé di layaam layaam yi ay naan non dañoo <laughs> ah, war a dégg naa waa Tiwaawoon li mu bëgg mm-hmm. mooy ci boppam mm-hmm. loolu mm-hmm. naar bu ndaw lu mu wax ca berkelle ba la ko déggee xam luñ bëgg woote te dégg nga Macky Sall ba muy wax dialogue inclusif Ousmane ba Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñëw bokk ñu dialogue bu ñu wax loolu bu ko waxee na ko wax rek nañu ko <laughs> ñaan ci njëkk rek ñu doo ko xool ndax dañ ko koy may wala dara Sénégal nag lu nekk fi mu naan dañ ko koy ñaan ci njekk mm. jamono bii moom mm. nañu ko ñaan ci njekk mm. bu mu làqatoo ci ay jóob pour ñu koy waxal muy wax la mbay peex doon wax naan waxuma ko waaye ku ma ko waxal mu jël nañu ko ñaan ci njekk rek ci njekk rek nag su ngeen su xëyee ngeen di def conférence de presse bien vrai que um, Aly Ngouille ak um, Mame Boye Diao ci candidat yi lañu bokk mais Aly Ngouille bu taxaw di plaidel ki nga xamante ne nii moo di Diomaye pour mu génn war a campagne yi yéen bokk na ci li ngeen di mën a avali amee ah, boo ci àndul nooy def lii lii lii yoon nit ñëw taxaw waxal la ko est-ce que yow doon nga ma mën a gis man ma coaliser ak Aly Ngouille waaw bu boobaa waaw d'accord mais Aly Ngouille da xam ne candidat tey moom moo war a wax dafa bokk ci ñaar fukki nit tout comme Diomaye ak keneen ak keneen ñoom war a wax. Mm. duñ tey Mimi Touré ñoom mi ngay wax sax foofu amu fa mm. parce que spolié la. Mm. mais entre vingt candidats Mame Boye Diao ak Aline Mamadou Dia Aly Ngouille Cheikh Tidiane Dièye Habib Sy ak ñooñu. fu ñu teew di wax Aly Ngouille dafa war a wax. te la mu war a wax moment bi loolu moo leen boole. Hmm. voilà mais du reste day resté. Hmm. di bokk ci nitu. nosin hmm. wi maanaam nitu système bi. li mu wax noonu moom ñu ne ko bokk bokkale mooy dëgg gu ñu wax. te loolu dañ koy tàccoog fukki loxo juróom. que Eva Marie Coll Seck mu xëy. démissionné Youssou Ndour mu wax xalaatam Abdoulaye Coulibaly démissionné na leen. ñi nga xam ne tey ñoo nekk ay patriote tàccu ak fukki loxo juróom ne leen wax ngeen dëgg nii la macha di xaar nag ñeneen topp ci ñu am jom d'accord léegi pression bi nga xamante ne ni am na euh, au niveau Euh, di territoire euh, international sa laa ko mën a di pee gis nañ ne États-Unis teg na ay actam ñi ngi nag exhorté ñi nga xamante ne ni ñoo di gouvernement bu Sénégal ngir rek ñu organiser élection yi euh, à date précise na nag ngir ñu restaurer li nga xamante ne ni moo di données mobiles yi d'ailleurs sax loolu c'est déjà fait. kon nañ sant Baye Biden. suñ <laughs> Baye Biden moom. Baye Dan. waaw Baye Dan Gaye. est ce que sa est ce que tudd ngay Dan Gaye. waaw waaw dafa mel ni nag. Baye Baye Dan Diop la tudd dégg naa. <laughs> dafa mel ni Sénégal moom pour ñu déglu ñi fiy waxee ku ci mel ni euh, ñi nga xamante ne ni ñoo di waa forum civil euh, ku ci mel ni Birahim Seck mi nga xamante ne ni mooy coordinateur bi moom itamit appelé na euh, ñi nga xamante ne ni ñoo di citoyen yi à que ñu wut autorisation fépp ci territoire national bi ngir rek ñu amal ay marche yoo xamante ne ni ça sera pacifique ngir rek jooytu di nga xamante ne ni ñu ngi koy faral di gis. bon loolu sax du ko jar dañoo nekk ci campagne te candidat dañoo war a campagne nag ku nekk campagne askan wi yëpp génnandoo topp la xam nga lii ku bañ dee am bañ taal am bañ nangam nangam am xam nga noo koy faje mm. màggat yi nga xam ne sax dañoo màggat bay doxe bant mm. ñépp nañu génn ànd ci dox bi parce que faw sénégalais yi génn nag gis nga ñun dama ko wax démb ne leader yi ci ñoom la des mm. ñu génn askan wi comprendre leen topp seen ginnaaw askan wi it kenn ku ci nekk da nga war a xam ne réew mi da nga cee am kàddu. mais comment tey moment bi ñu defee puisque lundi je pense bi président bi waxee ci dimanche bi woote nañ te euh, bi ñu génnee FDS yi lañ jàkkaarloo. waaw mais bu ñu jàkkaarloo ak FDS yi da nga yaakaar FDS yi ñoom amuñ xam-xam ci ne li leen waaju jox comme ordre waruñ koo exécuter mais ci askan wi la ñu bari. mais grenade waaw non defaguñ ko mais na askan wi bari ba tuur. dootuñ gis nga dóor grenade grenade ki koy dóor day metti parce que effort lay dóor mm-hmm. te da ko te dana ci nooy mm-hmm. beneen bi mooy daa seer mm. nee nañ ma benn bi ci gën a faible lu ma ëpp juróomi junni lay jar <laughs> loolu nag comme ay juróomi junni yu bari la mm. nañu ko épargner denc ko mm. bañ koo génne loolu nag pour mu am buñ bàyyi askan wi ay mille personnes génn ay six cent personnes wala deux mille personnes déedéet li nekk Dakar lu ëpp un million de personnes dañ génn ne du ñu ñibbi suñuy kër feeg waa ji yegg si wut jël euh, l'administration maanaam ci wàllu élection yi mu taxew ko ñëpp gis ne vingt cinq février dañuy amal élection ñu doog a delloo suñuy kër. kon yow jàpp nga ne 25 février am. daa war am parce que loolu mooy yoon du moom décret bi war a tax mu tàmbali def jël na ko. Mm. ba ñu tàmbali ba soobu ci. Mm. ba ñuy dem enregistré. Mm. mais décret bi ak siphon bee ko waa ensemble def voteel ko soi-disant ay procès de loi dara baaxu ci. te xam na ko. kon nit ñi. nañu ñëw wàcc. lii may wax ak jël seen àq ak seen yelleef. Mm-hmm. bu boobaa jarut toj. jarul sànni mbub mu xonq sax boobaa jarul nit ñi sol ko mm. nañu sol lu weex tàll mm. taxaw ne du ñu dellu suñuy kër mm. fekk delluwuñu beneen bi mooy surtout les patriotes ñiy safoo Ousmane Sonko ay sympathisant am gis nga lii Amadou Aline Mamadou Dia di def te ñu def ko démb foofu mooy mbir mi jeexaat foo jëlee doom su mën ne ba mënta ñàkk mm-hmm. nañu xam ne nag waxi sëñ Moustapha si jamu waxoon te man ma ko doon xaw a sax xarab ba mu ne ko mën naa koo yóbbaale. Mhm. yóbbaale boobu suñ borom. Hmm. mi ngi koy dëggal. ci campagne bi. Hmm. Aline Mamadou Dia def kon sëñ bi la mu doon wax. Mhm. Euh, foraatuwu ko suñ borom def na ci barke waxam muy moom mën nañoo yóbbaale mooy ñu def campagne collective mhm. nit ñi bari bay tuuru mhm. kenn ku nekk nag la ngay wax ci campagne collective bi loola ngay convaincre nit ñi la seet mhm. nga xam ne tirbine lay doon ñu nit ñu daal di génne projet Diomaye di ko jëmmal ñay Aly Ngouille Ndiaye génne nguy deux mille vingt quatre ñeneen ak ñeneen def ko waaye sañ Moustapha Sy yóbbaale ñu jamono ndax fi ne nii nag jamono yi ñu fi mat kilifa bëri na wàññi de <laughs> d' accord Amadou Ba Pastef moomu sax si la ñu ndax ndaxte Amadou Ba mandataire. su ma naan dañuy mat kilifa mooy. Guy oh. Marius Sagna. waaw mat na ma kilifa. wallaay kaw gis nañu taxawaay bi mu am. ci euh, Mimi Touré Mimi Touré mat na ma leader. waaw ñoo xam ne ma li matuñ ma leader. d' accord dañuy toog nii rek di wax bu affaire yi doxee neex. Mm. nga man a topp ñu wan la na kilifa. Mm, mm. waaye bu affaire yi ne këtt na jonn. waaw ah. Amadou Ba mandataire la euh, bu bu bu bu bas bu Bassirou Diomaye moom tey dafa mel ni bi muy wax nee na conseil constitutionnel moom euh, am na compétence pour mën a censurer li nga xamante ne ni moom la ndogal bi paysan bi jël est-ce que loolu da nga si ànd ak moom. mu ne conseil constitutionnel. mën na am na compétence su censurer comme par exemple. ah bien sûr non loi bu ñu koy voté. Mm. Euh, euh, président bu dee projet de loi la. bu dee mm. du proposition de loi moo xam projet de loi wala proposition de loi. Mm. bu mu ci mën a doon bu dee daa jógee ci président dem ensemble dafay nekk projet de loi. député yi day nekk proposition de loi. suñ ko voté ba pare day ñëwaat ci président mu promulgué ko. léegi na constitutionnalité parce que loi bu ñu fi teg dafa war a dëppoo constitution. xam nga tey am na loi yoo xam ne bu ñu ko bëggoon a jël tey voté ko muy président wax ko wala nangam nangam hmm. li ñu war a xool ndax dëppoo na ak constitution hmm. bu dëppoowut ak constitution conseil constitutionnel dafay obligation dàq ko hmm. moo xam nga saisiroon ko wala nga bañ koo saisir sax loolu daf ko war parce que daf fi nekk conseil constitutionnel di sàmm constitutionnalité ngir mu méngoog moom te loi bi clause d'éternité bi ak d'instant d'instant bi euh, nu euh, man nag euh, waati tubaab bi <laughs> bi intangibilité voilà boobu noonu daf ko wàccoowut ak moom mm-hmm. te loolu dañ ko voté woon bañ tëj ko mooy kaste gi nga xam ne moom lañ ko kaste sànni biir géej mm-hmm. loolu noonu tey mm-hmm. dafa dëppawut ak conscience bi beneen bi mooy li waa ji jiital wax ko ci ne crise moo waroon a tax exceptionnellement mu jël kii bi dàq ay crise boobu amul crise boobu sax loi bi mu li mu loolu moo fi indi crise bi kon problème bi mooy su bëggee jàmm ji nga xam ne moom laa ko yéene ñëpp yéene ko mooy na bàyyi élection yi mu am date bi mu war a am loolu mooy dëgg parce que ba fi ne nii ci yoon li yoon maye nday aata ji wax soxla wuñ sax conseil constitutionnel di wax pour loolu di doog am mm. xanaa day dàppale rek ba fii may waxee ak yow ànd ak bi mu yóbbu assemblée muy projet de loi mm. ak lii député yi xool ba xam recevable na ba ne recevable na ak vote bi ñu ci voté ak temps bi ñu ci def yëpp day mujj ci tout ça pour ça. Mm. mooy dara baaxu ci. si fond la. Uh-huh. léegi teewut kon nag ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon. Mm. bu ñu kenn tee campagne. Mm. dañuy campagne ba mu neex. jarul sax def. di laaj euh, déclaration man maa ngi dégg bu fekkee ne clé ko wax mu naan ay autorisation encore une fois. Birame Seck Birame Seck mm-hmm. mars maa ngi koy wax ne ko mars. kenn du ko euh, autoriser dañ koy interdit. mars waxin la nag déggi na la. Ah, si administration bi ngay dem pour ñu la. Ah, kayit la kayit bi wane waaw boo defee sa déclaration ñoom ñoo ko war a donc loolu. waaw non signé même buñ ko signé wut. gis nga déclaration loolu laay wax parce que nappaate gi faw ñu wàcceel gaa yi ci mbir làkk wi ñuy waxee mu leer. gis nga boo demee def déclaration. respecté 72 heures yi. c'est automatiquement autorisé. Mm. wala nga respecté minimum maximum 15 jours. Mm. parce que boo payee 15 jours dootul baax. su mooyee 72 heures dootul baax. Mm. boo respecté loolu. c' est automatiquement autorisé. jusqu'à préfet di ko mën a interdit. ñu ne ko mënoo koo interdit lu dul day am risque réel de trouble. à l'ordre public mm. cumulatif ak manque d' mm. kon nga xam ne effective bi sax dañ ko ci soxla pour mu mën a gunge aji doxkatu ñaxtu gi ba mu mën a wax xalaatam parce que démocratie amul prix looloo tax ñu di leen wax fii ngay ñëw tey manifestation am. Mm-hmm. wala tey kii. maanaam boo taxawoon tey dafa war am ay takk der yoo xam dañuy veiller à ce pour manifestation bi am. Mm-hmm. ñooñu mën nañoo bañ a mat cent personnes. Mm-hmm. mais bu ñu ko bëggee tere. Mm. da fay ëpp da nga fay fekk lu ëpp mille personnes. wala lu ko jeg Sénégalais yi nag kon bu ñu la waxee ne la. waaw ah. bu ñu la waxee ne la maanaam. Euh, autorisation amuñ effectif. wax nañ lu dul dëgg. d'accord sénégalais yu bëri euh, bokk nañu ñu xamante ne ni benn partage bi la ñuy def mooy que ni euh, booy wax ko gën a xam président Macky Sall ci biir Sénégal doo ci épargne président Ousmane ko parce que yi muy wax yi xew nii tey yëpp moom daanaka waxoon na ko nee na président bi xamul négocier moom rapport de force rek nga mën a demee moom pour que li nga bëgg nga am bon xam nga man xam Sénégal laa koy wax xam nga nag réew mi gis nga bala nga koy jiite danga koy xam. Hmm. soo xamee réew mi képp kuy ci doomu réew mi moo hmm. xam fu mu bokk ak hmm. waaso bu mu mën a bokk ak euh, maanaam xeetu liggéey bu mu mën a yor da nga mën a natt ba kii beneen bi nag mooy koo xam ne yàgg na yàgg naa jiite jiite na fi ay cër cër cëraan jiite fi sax euh, cërub ministre de l'intérieur ñëw voté fi sans carte d'identité xam nga ki mën a ñëw fekk administration ñëw nga fàtte Fatick dem Fatick. Hmm. fàtte sa carte hmm. tax nga daal ñëw voté sans carte kooku ëllëg bu ñëwee daal damay def forcing war nga koo mën a gëm bu fekkoon ne su doon leader. Hmm. doon na ko jaral. mu tënku ci li yoon wax ba du def loolu ba mu mujj nekk ci aw xasam. te kooku comme jombul def xas woowu ëllëg suñ la taxawee gis mu def lii du la wet daaw dem ba xuree jëkku lii fii ci Kajoor. mais bi mu ñëwee di jaay doole mais waa Kajoor bi ñu waree fal daaw dem ñi prétendant yi maanaam la wax yi taxawoon pour laajoon ne dañuy nàngam mais ñu bëri ci kajoor am na ñoo xam ne dañu commencé woon di bañ mais ko ci bar moom moo def campagne yu daaw dem ba xuree xuree ñu ko lii jox leen ay garantie danañ ko jàppale nii nangam lii fi xale la woon nangam la mais daaw dem ba ñëwee commencé jaay yëfi doole mais ko ci lañ ne ko yow. Mm. lii ñu dal yëpp yow la. Mm. maanaam bari nañu voteel Macky Sall wala bari nañu voteel daaw dem mm. ba. maanaam tel ko bu dee Macky Sall Alioune Badara Cissé bokk na waaye mu baaragloo surtout. parce que Moubarak Lô question d'économie rek la doon apporté mm-hmm. mm-hmm. Macky Sall taxaw na fii yëlëb mm-hmm. saaku ceeb royal umbrella cinquante kilos bi boobu ay dix-huit mille la doon jar mooy bubbule bi ne bii laay wàññi mais lan lañ gis mu def ko après Moubarak Lô taxaw ne trouvé nañ ay niis nii lañ koy defee nang ak mang Sall taxaw nañu nana la Sénégal Mali man fee ñëw jënde fii ak njafaan maanaam carburant ba pare dem ba Mali mu gën a yombu Sénégal. c'est inadmissible. loolu yëpp nga wax ko. li fi nekk yëpp nga waxoon <laughs> yëpp nga dellu ci ginnaaw. Ah. maanaam moo tax bi bi gars yi di wax naan Wade da ne woon du ngeen fay saleer naan. Mm. Wade sax xamoon na ne du fay salaire nag donc loolu mm. contexte la. Mm. li ñu waxoon ne loolu la ñuy def yëpp. ak ànd ak fi baril bi texoon ci la wàdd ne lii buñ ko defee duñ fay salaire. d'accord taxawaayu Abdou Mbow mi nga xam ne day defoon euh, projet bi nga xamante ni nii nee nañu dañuy dinañu voté nañ seen loi nee nañuy euh, àggale seen commission d'enquête parlementaire bi euh, soo ko déggee mu yëkkat ci kàddu di wax ne président Macky Sall li mu def lu warte la par rapport ak askan Sénégal ñu jàppee ni ñoom élection yi dañ ko war a tëgg coûte que coûte loolu ban appréciation nga si. non lafañ war a mi mbaam lay faral <laughs> deyal ma torox yi moom dafa am ñoo xam ne ay deyal ma torox lañ même bu waa ji doon daan beneen bi nag mooy ci côté gisin sax Abdou Mbow ak Thérèse Faye ci ñi hmm. gën a loyal ci président Macky lañ danga dem bëgg nit ba loolu li ñuy wax passion daf lay mujj dal xam nga man awuma passion yooyu man yàllaa dogal hmm. lu ma mën a bëgg ci àdduna du tee lay dëgg rek ci laay bëgg di tege hmm. sama yaay ak sama baay laa gën a bëgg. Mhm. te bu dëgg taxawee. ñu mhm. def lu ma jàpp ne du dëgg. Mhm. damay taxaw ne leen lii du dëgg. d'accord euh, Moussa Bocar Thiam moom moo restreindre woon données mobiles yi états wax ba ñu ba ñu ba ñu delloosiwaat ko coupé Walfadjri moom daal gars yi nee nañ commande am la yoo toog fële rek di di ci daanaka foofu la ñuy jeexalee ndaxte waxtu bi xoj nañu. non man nag de wax dëgg yàlla kooku moom ma sa yoon du may wax ci waxam xam nga ñooñu jamono moo leen di àtte ji. Mm. te dana mujj metti ci ñoom. Mm. trop mm-hmm. gis nga excès des zèle. Mm. ñi ko gën a def mooy transhumant yi. xam nga yaa ngi wax sànq man Abdou mbaw ak Treize moom laa gën a mën a may yitte sax. ci Moussa Diakhaté ay. Moussa Bokar Moussa Bokar Thiam ak ñeneen ak ñeneen xuusma ñàpp yooyu ñooñu li ñu am rek la ñuy joxe. <laughs> looy tàggatoo. bon man nag du may faral di tàggatoo lu may tàggatoo xanaa. Ah. loo xam ne benn instant boo xam ne am na kilifa gu wax keroog génn ma wax xaw ma woon nag wallaahi ne sëñ arabi la. maa ngi koy waat ci sama gëñëb maa ngi koy waat <laughs> ci ne xaw ma woon ne moom la parce que man sëñ arabi dama am. teranga jum ba ma sa defal. mooy seet si nañu woon suñu entreprise sama mm. benn collègue collègue Madani Kane. Mm. Euh, nuyu ko boole maa nuyoole maa ak moom ma nuyu ko. Hmm. mu nettali ma ci sëñ Touba ay baax baaxam. ma hmm. jël àddiya jox ko. Hmm. mu noppi ñaanal ma. su ma demoon ba koy wax kàddu yooyu yooyu noonu même lu ma àndut même bu ma jàppee ne li mu wax amut. wala lu mu demee. doon naa ko waxee neneen jox ko ci rien que pour loolu. yàlla rek a ma tax di wax. bu doon loolu la dinaa ko njar ma xamoon ne moom la dinaa ko gën a njar mu yolom te du tee ma wax ko li ma bëgg a wax parce que man. nag làkk bi moom suñ borom dimbali na ma ci lu ma la bëgg a wax ku ma wax dara maa ko tey jarut sax nit même bu ñu ma doon yóbbu tribunal ñuy taxaw di wax fii ñu naan ay daa jéegaloog naa bu ñu ko waxee sax nañ xam ne maa ko tey mais nag li may wax muy dëgg mooy xaw moo ne moom la mm. su ma xamoon ne moom la yàlla xam na ne dinaa ko njar voilà bu ma koy kii it daal koy xaw a loolu ak bam kii mooy tax mais kàddu yëkkati kàddu daal dina fen tudd ko mm. xaw moo ne sañal bi may mm. wax sax wax ji mi ngi wane ne xaw ma ku mu doon bëggumaa xam fu mu bokk. Mm, d'accord te am na feneen sax fu ma ko gënoon ne yaakaare. fu dul mm-hmm. kër geneen kër sax bu dul ñeseen. d'accord l'archevêque bu bu bu ah. bu bu bu bu ñuy dippee monseigneur mm. Benjamin suma jumul moom nee na d'accordul ci rapport yi. Eh, par rapport ak suñu kilifa yi nga xam ne ñoom nee nañ Macky Sall or la. loolu moo la mm. voilà oh loolu moo ñu ci naqari. waaw ci parce tamit suñu. way jur su ah. doon naan sàngara di dóor suñu yaay du tee suñuy wër bi d'accord suñuy sëriñ lañ hmm. buñ sañoon kàddu yi jóge ci archevêque bi seeni taalibe di bég di ci fier hmm. ñun suñuy kilifa diine ñoo koy wax te dañoo waroon a veiller li ñuy def ni veiller à ce ñoom hmm. ñoom ñuy dem di ci wax. jërëjëf li nga xamee ne noonu. Mm. mu di ñu neex. jërëjëf waa ji daa jeexal jeex na euh, bëggoon naa nag ñu gën a yaatal vraiment mais xamee rek temps bi parfois daf lay xoj tellement ba doo comprendre ñu jaajëfal la bu baax a baax Abdoulaye Cissé ñu gën ko xam ci Saa Wolof yéen mbokk yi ñu doon suivre ñu ngi leen di gërëm di leen sant te leen di jox dig dajee beneen yoon ak ci ngeen bokk. jërëjëf. bokk dikkati na de. ndax Oustaz Alioune Sall ci émission bi la bokk. waaw ci laa bokk incha allah maa ngi bokk ci émission ci ngeen bokk màggaay yi bokk di sunu mbokk Iran Ndaw. émission bi mi ngi tudd ci ngeen bokk kon ci nga bokk Abdou man laa bokk sax ndax dañ ma cee bokkaale. man la Alpha Camara rajo Dunia RDV ànd ak yéen ci seen émission bi di ci ngeen bokk. nuy woo sunuy bokk ak seen i bokk ñun ñëpp nu ànd see ñëw bokk. man la moo Mamadou Lamine Bara Dieng bu ri maa ngi déglu émission ci ngeen bokk ci laa bokk.